changement de climat seddaay di dugg tàngaay di génn ñu faral di ko gis at bu ne waaye ren mu fas yéene am ay coppal ni solo ndax nee nañ ndox mi bari na est-ce que du sedd ba mu jéggi dayoo ñu déglu leen ci micro Thierno Kane. seddaay bi daal xam naa ne ñuy préparation yoo xam ne dana yaakaar naa dana métti quoi parce que tey tey day sedd ëllëg mu xaw a du tàng tàng boobu quoi te tey dama gis bi tey nii nar nay sedd trop na ko vraiment. seddaay bi bu dundee xanaa fu ma toll di diwu rek parce que weexaay bi moom mooy loolu ginnaaw soxna yi nekkuñu fi moom yaa ma gën a xam noonu rek lañ koy meñcee. Mhm. parce que ndox mi bëri na dégg dama dégg gars yi mag bu ndox bëree sedd dañ sedd sedd dañ sedd sedd métti te ren ndox am na te yaakaar naa daaw nu mu ren lay ëpp daal wax waxi mag ñi laa ko déggee lu taw dana ko sedd dana ko sedd nar na sedd parce que tey gis nga ni climat bi mel waaw nuru na ne ren moom nar na sedd trop. Mhm. li ñu xam naa ne ren moom dana sedd moom nañ jéem euh, sol jeget jeget am na solo sedd trop comme que sedd daanaka Sénégal yëngu ñu ko bu moom du min sedd fii comme que sedd bi des fois day ñëw ko dama ko dem te Sénégal ñëwul ah nañ sel si fëgg yaay bi rek. foog jaay boo ci nee moom jàmm am waaw. moom kay lépp ay changé xale jigéen yi mais nag am na xale yu jigéen yoo xam ne moom dafa mel ne dañuy dorogeewu moom faale wuñ sedd bi moom sement fu la ñuy doxee. Mhm. man seddaay ma moo gënal la man parce que lu tax parce que seddaay boo si boo si dox doo ñax ma ngay dox fi ba Colobane wala fa Dakar doo ñax mais bu tàngee jëwee nag moom. boo doxee deux pas trois pas rek da ngay ko quoi. célibataire yi am nañ problème ren ren ji célibataire am na problème <laughs> célibataire yi kay am naa gars yoo xam ne fii am nañ problème bu mag waaw. ah parce que lu ko waral dañu wax ne sedd ak tàngaay la wax te seddaay daanaka boo war dox boo boo war dox lu bëri ah doo ñaq bu tàngaay ñëwee boo doxee deux pas ñaq te seddaay li mu dégg ñu eh, seddaay moom. parce que feebar feebar boo am boo am ci tàngaay bu sedd bu dana dana génn loolu laa dégg daal gars yi di wax daan bu bu ñëwee jàngoro yëpp day génn mais bu tàngaay ñëwee bu tàngaay ñëwee daal laa dégg ñu ne dana mën a danga mën a réaliser réaliser daal ba génn si daal mu nekkoon ay kàddu yu am solo yu ñu fi jëlee waaye itam ñoom ci seeni kàddu dangay dégg ñu naan nañu faral di diw ndaxte lii di seddaay day yàq teen Thierno Kane Leral TV